mën na am revers en fait. revers de la médaille d' accord ci beneen euh, ponk bi muy rek li nga xam ne moo di euh, discours à la nation bi nga xam ne njiitu réew mi Macky yëkkati na ko. Hmm. askan bi euh, ku ci nekk ak fa nga ko doon xaar yéen waa serviteur est ce que la ngeen doon xaar ci njiitu réew mi Macky Sall dégg ngeen ko keroog 31 décembre bi mu yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci sénégalais yi. benn point lañ ci doon xaar mu ñëw ci muy la traditionnelle répétition de son discours cest répétition. boo jëlee analyse discours bi ci ñaari fan le fond et la forme sur la forme c'est un discours long gudd vingt cinq minutes juste pour souhaiter les meilleurs vœux aux Sénégalais pour man jaru ko woon ñaareel bi mu am une contradiction boo xam ni moom moo ko moom moo ko marqué à la fin de son discours président dafa ñu doon rappeler li nga xam moom moo constitué le ciment de notre société li nga xam moom moo constitué la base même suñu suñu nation du nu rappeler les symboles de la République que ne amul kenn ku nekk au-dessus même de la nation on d'accord avec lui mais moom wareewu ko ce qui est malheureux parce que ci ginnaaw fa mu doon waxee moom moo njëkk a désacraliser li nga xam mooy les gestions de la république moom moo jël les couleurs de la république substituer ko avec les couleurs de son parti waaw ah. donc mu il est très mal placé pour nous rappeler même ce principe même primaire même de, l'état-nation du Sénégal ça c'est la première remarque de forme le fond le président il a dit tenir benn discours de bilan et de perspective oui nee na rappelé nañu li nga xam ne moom mooy njàmbaate bi nga xam suñu économie am na ko une économie résiliente on rappelle une économie résiliente dont la structure économique elle est amul benn résilience foofu rappelé nañ ko ni dinañ jógee ci 4,8 pour cent dem ci 10 pour cent comment est-ce qu'on peut quitter de 4,8 à 10 pour cent alors que Banque mondiale le 28 septembre 2022 mi ngi ñuy ni la performance économique de l'État du Sénégal mu ngi ko tiré sur la performance économique de ses bailleurs de fonds et des de ses partenaires financiers internationaux sur le plan économique bu muy bàkkoo pour man amul benn cohérence de mhm. structure sur le plan sanitaire que annoncé na qu'il y a des perspectives mais sur le plan de l'éducation bi mu wax au-delà de la politique infrastructure bi mu wax au moment où le président parlait des universités des lycées et des collèges mi ngi bàyyi li nga xam ne moom mooy l'enseignement primaire xamul ni en actuellement en 2022 il y a 4921 abris provisoires boo xam ni ba tey on n'arrive pas à les résorber. il a annoncé ay lycées yoo xam ne dañ ko war a defar aussi. dama ni la base de l'enseignement c'est le primaire bu fekkee dans l'enseignement primaire am na ñoo xam ne dañuy quitter te ils savent ni lire et lire. Mm-hmm. il y a un problème. Mm-hmm. mooy socle éducation. au-delà de ça président mm-hmm. il a parlé

justice perception la gis-gis la ak ressenti mhm. que liñ gis mooy à chaque fois qu'il y a des yu ñu épinglées dans la gestion promotion la am mhm. troisième mandat nag ñoo la doon doon ci xaar waaw mooy troisième élément de son discours un discours du maintien du flou c'est un ni oui ni non boo xam ni ça n'a pas sa raison d'être. est-ce que leerul finalement bu fekkente ne dégg nañ Ismaïla Madior Fall kàddu yu mu yëkkati mu ne ñoom bi ñuy bind constitution bi ba barki démb la ko doon wax ci sunu naataango yu nationale dañ cee dugaloon benn euh, disposition bu nga xam ne da doon wax que ni euh, liñ waxoon ñaari alinéa yooyu la muy le mandat est de cinq ans nul ne peut faire plus de mandat consécutif loolu la dañ day appliqué wu ci mandat bi nekk en cours conseil constitutionnel dindi ko ñu déggee le ministre de le réalisateur bu ne kenn mënatul wax ci micro bi kan lay waxal kii wax ci micro kii waaj wax ci micro bi kan lay waxal bu ne maintenant kenn mënatul wax ci micro bi kan lay waxal kii waaj wax ci micro kii wax ci micro bi. kan lay waxal ñoom ñaan ñëpp lay waxal. substituer nul nga remplacer ko par Macky Sall Macky Sall mënut def ñaari mandat yu tegloo ak schéma boo ko mën a expliquer le nul. a été rédigé dans une forme négative et en mhm. légistique de droit dañu wax ni boo ko bindee sur une forme négative amul benn exception fi may terminer sur ça mooy la lettre elle claire mhm. bu fekkee d'accord nañu la lettre n'est claire nañ invoqué l'esprit l'esprit a été deux choses président Macky Sall bi bëggoon limitation des mandats à deux Ismaïla Madior bi porté la révision mais ñoom ñaar ñëpp ils ont clairement dit que président Macky bi mooy son second mandat yi jeex donc la lettre elle est claire l' esprit aussi elle est claire. d' accord alors Pape Sané le président est resté à fond ci ñëpp lu ñu ko doon xaar mooy hmm. euh, mbirum troisième mandat. tu l'avais prédit waxoon nga ne du ci wax. bon du ci wax bu weesoo sax euh, troisième mandat bi. mais lecture nga def ci discours à la nation. waaw li li monsieur wax dafa am solo c'est-à-dire les sceaux de la République. mooy les armoiries yi ngi nii di ko gis. Mhm. tey jii on dirait que Sénégal amul le grand chancelier de l'ordre du mérite ki nga xam ne c'est lui le protecteur des so man loolu moom a jaaxal. c'est-à-dire il y a un grand chancelier qui est au Sénégal logé à la présidence moom liggéeyam yëpp. c'est la protection des sceaux de l'État mais moom bu xëyee gis lii chaque jour daaw ak ren je crois que ce gars n'a plus sa place euh, au niveau de la chancellerie na fa jóge parce que bu dee lii lii lii moom mun na toog di ko seetaan dans une république ce monsieur n'a plus sa place à la chancellerie mooy benn problème parce que des fois aussi il faut que au-delà de tirer sur le président il faut qu'on tire sur les responsables qui, sont nommés parce que division un général moom moo war a les sceaux de la République du Sénégal joxuñu ko politicien joxuñu ko keneen moom nañ ko jox su mu seetaan li donc ça veut dire que y a un problème dans ce pays là beneen problème bi mooy lan mooy dans ce discours ce qui plus heurté le plus fait mal mhm. c'est que le président la République le chef suprême des armées mun a toog tan xamlu dans son discours de fin d'année mhm. la disparition ou suppo ou décès de deux militaires cest à boo xoolee même dans son discours il a fait exprès de ne même pas li mu doon def auparavant nuyu saluer les forces de forces de défense et de sécurité c'est-à-dire pour ne même pas en parler faire référence aux deux là Didier Badji ak euh, comment dire Fulbert Sambou il a préféré ne même pas transmettre des saluts justement aux forces de défense et de sécurité te sa waay le socle d'une république est-ce que nekk omission aussi non de omission il l'a fait exprès ça c'est même pas c'est-à-dire c'était pour ne même pas parler de ces cas moo tax il a préféré tëb bañ a nuyu ses soldats euh, yi nga xam ne bu ñuy nelaw ñoo ma notre pays est sous surveillance et en sécurité ñoo ma tout il a fait l'impasse sur ça léegi sur le troisième mandat comme je l'avais dit ici moi je m'y at je ah. attente la woon pour man xaaruma ko ci woon bettu la bettu ma parce que dans la mesure où ñun dañu am benn président bi nga xam ne moom dafa jàpp ni que moom la république tourne autour de sa personne c'est pas que moom c'est lui qui est c'est c'est c'est lui qui tourne autour de la mais moom pour moom c'est la république qui tourne autour de lui moom mooy décider et dans ses propos chaque jour ñu dégg ko quand on va jusqu'à un président te que léegi man sama troisième candidature <laughs> ci man la dépendre mais ça veut dire c'est extrêmement grave dans un pays mm-hmm. un président de la république taxaw ne la man sama candidature pour un troisième mandat que les Sénégalais que la constitution juge illégale mu ne moom ci moom la dépendre ça veut dire que quelque part on a atteint les fonds. parce que am na droit yóbbu ji ay këyitam conseil constitutionnel. non après c'est au juge de. waaw c'est vrai ndax effectivement dem non non mun na mun dem déposer ji. Mhm. mais je dis que la morale. la morale. voudrait voudrait <laughs> monsieur monsieur parlait tout à de la morale politique la mhm. morale voudrait que quand même. ñu respecter sénégalais yi. parce que mënul moom sur euh, quatorze euh, je sais pas ou onze sénégalais qui ont été tués lors des manifestations euh, contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade. moom ci circonstances yooyu mu falu ci. Mhm. joxe kàddoom parce que kàddu tamit nañu dañu waxante dafa sacré kàddu dafa sacré alors quand on certains gens de l'APR ñëw taxaw naan ñu non kàddu président de la République c'est pas ce n'est pas la constitution mais c'est quelque part. yablu président la sax. non waxuma yablu président mooy que ces gens nous faire croire que on est en monarchie qu'on plus en république. <laughs> Euh, li ma ko bëggoon laaj sax saisir euh, pour euh, ñu yóbbu mbir yi ci ci yoon moom yëkkati na ci ay ndax li wax moo di ne euh, article bu loi organique waxul benn yoon que ni maanaam cour des comptes dafa war laaj forcément ouverture d'information judiciaire mais beneen mooy même bu ko laajee ouverture d'information judiciaire moom ministre de la justice mooy xool ban réponse appropriée la war jox ouverture d'information judiciaire boobu la parce que ay enquête préliminaire sax mën nañ ko que doy na la euh, en tant que moom moo nekk le ministre de la justice. waaw man de man damaa bokk ci ñi jàpp ne li gënoon a simple mooy xam nga yenn déclaration ak yenn position yi sax boo ko déggee euh, bon parce que dañuy am crainte par rapport ak euh, emprisonnement am ci ak yeneen. Mhm. xam nga lu jëm ci wàllum détournement il bon que ñu rappeler li ci loi wax. bu la ko audit épinglé même bu dossier bi ñëwee tribunal même bu ñu tijjee information judiciaire même bu amee yoon moo ko wax am na ci benn li nga xamante ni moom lañ lay wax ni la justifié woo ko et que boo ko justifié day nekk détournement am na ci pourcentage boo xam ne boo ko joxee boo ko delloowee yoon dafa lay may bàyyam dëgg ni ko doo dem kaso donc foofu noonu warul am crainte dès l'instant que prison bi moom mën na bañ a am rek foofu warul am crainte beneen bi ci topp mooy euh, la seule constant li nga xamante ni leer na ba leer te kenn mënu koo weddi moo di ne am na ñoo xamante ne cour des comptes leen épinglé dem benn mhm. yemul ci loolu comme sam ni mu koy defee cour des comptes moom ba mu dalee génnee rapport ba pare saa yu génnee rapport ñaar moom dañ ko ciy gis mhm. mën na am na ci ñoo xamante ni day demande ay poursuites judiciaires am na ci ñoo xam ne day demander ñu teggi leen poste ba ñu na ci yoo xamante ne day def ay recommandations ma jàpp ne nag li gënoon a yomb mooy ñu jël mbir mi yóbbul ko ci yóbbal ko ci yoon bàyyi yoon def liggéeyam su ko defee ñu ñu apprécier. Mhm. am na ci nit ñoo xamante nit ñu bëri ñoo xam ne rapport épinglé na leen ñu ñëw justice ne lii du détournement. Mhm. li simple ab jubbanti bu ndaw la rek malversation la rek malversation bokkul ak détournement ñoo dem am na ci ñoo xam ne justice da leen may leen non lieu. Mhm. ñoo ñu dem seen yoon donc ça ne veut pas dire que nit ki bu ko defee. dinañu def loo xam ne dëppoo naag d'accord pour man tout le reste de la littérature. une précision boo ma ko permettre. sur sur sur article heure euh, euh, journal bi jot na euh, mais bien vrai que ni préciser wul que. bu le président de la cour de la cour des comptes bu saisiree le garde des Sceaux dafay demander information judiciaire mais terewu ko aussi. Mm-hmm. il faut que ça soit clair. Mm-hmm. article bi dafa wax ni dina saisir par déféré le garde des Sceaux et que ce dernier va saisir le procureur. et que lu ñuy xaar ci moom c'est pas une parce qu'il est en de suggérer que mën na def enquête complémentaire ce n'est pas qu'on demande on demande information judiciaire d'accord hmm. parce que nee mën na jël temps bu ne instant il faut que ñu càmbar koog yooyu noonu te euh, ministre yi aussi euh, faaw ñu xool leen voilà maanaam daal Ismaïla Madior Fall na tàkk <laughs> <laughs> Sénégalais dañu rien à nous aimer maintenant euh, Silla di ngi remercier bu baax baax